aywa bu ko defee soxna Amina ñu ànd seetaane li nga jëli woon te ñëwaat. soo amoon possibilité toog ak Oustaz Mactar Sarr lan nga koy laaj. waaw lu ma koy laaj si wàllu góor jigéen laa koy waaw maanaam ñu nekk ensemble quoi xam nga war a voté loi boobu woote affaire góor jigéen yi maanaam ñu ko nanguwul ñooy lislaam lan mooy seen daan quoi ñooñu. Oustaz mu mel ni dégg nga kii rek li mu laaj si affaire góor jigéen yi léegi yan leeral nga ko mun jox. waaw loi bi buñ ko yóbboo assemblée nationale. ngir ne nañu euh, yokk daan. ñu teg ci góor jigéen ñi ku ca ku ko votewul encouragé nga ngóor jigéen. su boobaa nag bàkkaar bi yàlla bindal góor jigéen bu defati ngóor jigéen dala koy bindalaale ndax dugg nga ci biir ñi yonent bi sallallahu di wax ne ku sos lu bon am nga bàkkaaru la nga sos ak ku la ca roy ba yomal xiyaam kon bu ñu indee benn loi boo xam ne dañ naan dañu bëgg tere lu bon nga ne man ànduma ci loi bi tere lu bon lu bon loolu buñ ko defatee yow mi amoon kàddu pour lu bon loolu dañ ku ko defatee dañ lay bindal bàkkaar boobu ba faaw kon buñ dugalee loi bi assemblée te loi bi ñun xam nañ li ko lal man ca ñu initier loi bi laa bokk bokkuma ci benn parti politique dara taxu ko jóg lu dul gis nañ mbon guy tasaaroo agenda bu jugee ci biti ñu étudier ko man ak ñi ma àndal ci ànd sàmm jikko yi Ababacar Mbuub di sunu coordonnateur mm-hmm. ñu ne lii li koy saafara faaw luwaa dugg ci du wax kese ci lañ doxee ba yegg ci luwaa am député yu ko porté ndax ñun du ñuy député ay député ñoom ñoo ko mën a jël yóbbu ko assemblée député yooyu jël ko yóbbu ko fa kon li ko lal lenn dong la mooy ñàkk sunu réew fexe ba ak ngóor jigéen du fi law agenda LGBT yi tasaaroo bay dugg sunu éducation ñu dakkal ko misaal mu jege rek fii ci Tëngéej ci euh, daaw euh, walla daaw euh, profu anglais bi seen yañ joxoon seen élèves ya ah sujet yi ñu leen joxoon sujet ñu leen joxoon mbirum góor jigéen ma nga ca woon loolu lu feeñ la ñu coow ko ñu xëy jéggaloo génnee ko ci wax mais bu feeñutoon day jàlla ndax agenda UNESCO bi seen programme fii ak 2030 yor nañ ko gis nañ li ci nekk déjà woote woon nañ fi mbuur pour jéem ko jàllale ci école yi euh, yaak yaag euh, ñu ni mel ñoom ñoo ca taxaw ba jàllul li nga xam ne mi ngi raam te yow ëllëg say doom ñu mën leen a jàngal pour ñu toléré ngóor jigéen même buñ ko doonul ba keroog ñuy mën a accepter ñu yegg ci dépénaliser ngóor jigéen ci Sénégal comme niñ ko sàkkoo ci àdduna bi yépp Nations Unies sàkk ko ñu yor document document yi léegi ñun buñ gisee yooyu yëpp taxaw ne dañoo bëgg loolu dakk ñu arrêté agenda LGBT yi ñuy déroulé sunu code de la presse ñu dugal ci euh, orientation sexuelle di tere yow technicien bi wala journaliste bi bul ŋàññati góor jigéen suñu permis yi ñu dugal ñu ci genre ministère ñu indi li ñu genre te genre bu la ci kenn ndax jëlal transgenre rek xam ne mooy genre mooy góor jigéen transgenre mooy góor gu ñëw ñu soppil ko bindam ba mel ne jigéen loolu mooy transgenre wala jigéen juñ soppil bindam ba mel ne góor bu la baat bi réeree ñu naan genre lii lay tekkeeg lële bul sori jëlal transgenre rek tekki ko mooy ngóor jigéen yii yëpp ak yeneen yu nëbb moo tax ñu initier loi bi pour voter ko kon mbokk mi ni mu laaj buñ demee bu dugal ko assemblée national lenn doo nga ko tax a jóg mooy na ñëpp ne waaw dañoo bëgg lu bon lii ñu dakkal ko te ba léegi Sénégal amagul loi buy tere ngóor jigéen loi buy tere acte contre nature rek am te acte contre dafa vide góor jigéen bu ñu jàpp bu ñu demee ca kanamu juge ba nga ami avocat da ngeen doon takkante fii ci Tivaouane Pël salle bi lañ leen fekke ngeen def réception lépp luy preuve yi wane ne ay góor jigéen ngeen mi ngi fi bu ñu leen yóbbee ci juge ba acte contre nature mënu laa daan. ndax acte contre nature ñaari góor yuy ànd wala ñaari jigéen yuy ànd la mën daan waaye dangeen doon takkante kese yem ca munuñ leen a daan léegi nag loi bi ñu yóbbu dañuy wax ne dañu bëgg léegi mu leer LGBT mhm. lañ bëgg ñu dugal ko ci biir constitution bi mu leer lesbienne mhm. muy L bi bisexuel mhm. lesbienne mooy jigéen ji ànd ak moroomu jigéenam bisexuel góor guy ànd ak jigéen ak góor yëpp. LG gen bi G bi moom mooy géey góor guy ànd ak moromu góoram. LG B bi mooy bisexuel T bi mooy transsexuel wala transgenre. transgenre mooy góor gu dem ñu soppil ko bindam loi Sénégal góor gu dem ñu soppil ko bindam amul daan bu lay de maanaam góor gu dem tey ñu def ko jigéen. bu la neexee dox ci mbedd yi kenn du la wax dara ndax loi bi terewu ko loi bu bees bi ñu dugal assemblée daf koy tere góor guñ jàpp ci loolu noonu le dañ lay dugal ci biir loi bi euh, bu dee kuy def apologie la trois ans ba cinq ans bu dee ngóor jigéen gu fees la cinq ans ba dix ans alamaanu un million ba cinq million waaw lii buñ ko jëlee dugal ko maanaam ñu modifier article trois cent dix-neuf bi mm-hmm. leeral ngóor jigéen mu leer faay yi nga xam ne moo ci desoon yëpp ñu tëj ko ba ci apologie ngóor jigéen lii kuy jullit ku am valeur wala sax ngay catholique sa diine lam la jàngal wala sax gëmoo diine mais am na ay valeurs yooyu sàmm da nga war a wax ne waaw dañoo bëgg mu jàll léegi nag bañ mu jàll mooy sóoraale woo sa diine sóoraale woo sa aada mais am na lobi yoo ragal ca biti mm-hmm. léegi bu loi bi jàllul ngóor jigéen di continuer di law bàkkaar buñ bindalati góor jigéen keroog ba nga waxee non dañ lay bind laale même bàkkaar bi ndax yeneen bi moo ne ku sos lu baax nee nga wii mooy sos nga lu baax pour ñu sàmmee ko mbaax gi am nga tuyaa bay la nga sos ak ku royate ca loola ba yomal xëy am maanaam boo ne bëgguma mu am fi luy lu indeeti lu mel noonu ba tax gàllankoor na ba loolu amul yow ma ne woon wii ca assemblée ba ba luwaa ba jàll tuyaaba la yàlla bindal feek ñi ngi wéy di gàllankoor ak di empêcher agenda LGBT yi ci senegal mais boo ne non jëmbat nga mon luy lawal agenda bi te agenda bi ñu ngi koy togg pareeguñu fii ak at la jëm ci kanam bés bu ñoree bañ ko yekk ba góor jigéen sañ def fii mariage am ñu lonkante ci mbedd mi taxaw fii fóonante fa lañ jëm comme la am France 2013 lañ légalisé ngóor jigéen ñaari góor bu leen neexee dem mairie tey ñu maye leen. ñaari jigéen bu leen neexee dem mairie ñu may leen France loolu la ñuy togg pour bu ñoree Sénégal gii la jëm si léegi nag ku mën a fexe ba lu mel noonu le du am nga toog di seetaan ba mu am lu mel noonu bu amee donte faatu nga nga sa bàmmeel mm-hmm. yow ma sababoon ba loolu noonu law mm-hmm. danañ la indil sa pourcentage su bàkkaar ci sa biir bàmmeel. jàll question. ma amoon question bu ma koy laaj genre question la wala suggestion mooy. ba xam mën nañoo créer benn plateforme boo xam ne yenn sujet tabu yoo xam ne nit dina am kers di ko laaj wala mu tamit toog mën koo laaj imaamam bi nekk ci koñ bi des fois yooyu yëpp li muy xamante imaam bi kers mën na see dugg ba du ko mën a laaj mu ñu créer plateforme boo xam ne question tabu yëpp nañ ko ci mën a poser ñu laaj leen ko parce que des fois am na thème yu bari yoo xam ne nit ñee ngi koy aborder nit ñee ngi réer di ci dugg duñ ko duñ fekkee dañ koy dugg parce que dañ koo tey mais parce que dañoo xamul seen diine bu baax mais genre plateforme yooyu dina tax nit ñi gën a mën a xam lu bari seen diine après dinañ mën a mën a poser question yoo xam ne duñ ko mën a poser koo xam ne dinañ ko xam ñu leen si gindi lu bari da siy baax tamit. waaw macha allah li mu wax de lu am solo la loolu moom xam naa laajaan na ay jéego mais jotaguloon a am mi ngi am nag ay question tabu yoo xam ne léeg danañ ko laaj mais plateforme buñ taxawal uniquement ngir loolu wax dëgg amagul gannaaw wax na ko nag xëy na lu ñuy bàyyi xel la donte du yomb ci sama genre gi ndax seenu tërëdi li muy wax tërëdi mooy ñàkk jot ci yu bari am na benn mbokk moom mos a wax lu mel noonu ne iPhone am nañ genre plateforme yu mel noonu nga xam ne nii da ngeen ci mën a dugg waxtaane yenn yi nga xam ne du nekk genre groupe WhatsApp mais genre xaw ma nan la tuddati la wax ci iPhone ah di wax waaw genre xam naa ñàkkul yu mel noonu lee lay wax mhm. mais yooyu léeg-léeg euh, ku mel ne man hmm? club house merci beaucoup club house euh, genre plateforme yu mel noonu xëy na moom lay junju waaye loolu yëpp euh, ay mbir la yoo xam ne xëy na du ñàkk bis danañ ko war a mën a def ndax nag léeg nit ñi comme ni mu ko waxee am na koo xam dana am kersay janoog yow mhm. am lum la laaj wala nga xam ne moom mooy diw am lum la laaj waaye am na plateforme yu mel noonu xëy na mën na caa dugg ngir poser yenn question yi donte du nekk lu yomb comme sama genre yi mais même bu dul man war naa am ñu volonté wu ngir loolu surtout mbokk jigéen ñi léeg am na loo xam ne seen mbokk jigéen lañ koy bëgg laaj moom lañ koy bëgg a waxal duñ ko mën a wax ak góor yooyu yu am solo la yu mat a bàyyi xel waaye daal ba fi mu toll nii jëmmalaguñu ko. maanaam souffrance jeunes yi ñuy jànkonteel si maanaam moment yu ñu toll nii ñoom lan moo si seen taxawaay. en tant que homme religieux en tant que ñi nga xam ne am nañ kàddu ci réew mi waaw bu mooy première question bu koy bëgg waaw euh, liñ ci taxawee de mooy dëkk di fàttali gouvernement bi seen wareef bu ñu gisee naka sudul noonu ñu taxaw dénoncé ko waaye tamit dëkk di orienté ndaw ñi gëmloo leen ni du lépp la leen gouvernement war a defal gëmloo ndaw ñi am jom takku liggéey temps bi ñuy yàq ci whatsapp di ko yàq ci facebook di ko yàq ci grand place yi buñ ko jëloon yóbbu ko feneen fu bokkul ak foofa ñu ko jëmale dana am lu mu wàññi ci seen coono yi ñuy dund ci ñàkk liggéey ak jafe-jafe am réew mënula dem lu dul ndaw ña ñoom ñoo ñoom ñoo xam li leen war ñu nekk ci dëkkee dénoncé état li muy doxal baax na ci lañu nekk waaye nag dëgg-dëgg mbir yi ndaw ñi la te ndaw ñi dëgg-dëgg ñu jëm kanam mooy ñu am jom nangoo liggéey soo génnee tuuti dem dañ see bu baax a baax. Hmm? mooy si côté bi mu waxee ndaw ñi dañ see dañ see effectivement mooy chômage u ndaw ñi ñàkk liggéeyu ndaw ñi tout le temps ngi leen di dig te hmm. dara amu ci. dara ndaw lu nekk yaa mën a kéréel sa bopp sa liggéey. Hmm. mais du état. soo génnee dem ci biti da ngay gis ne suñuy ndaw ba tey seen liggéey des na liggéeyu ndaw ñu ci bari léegi connecté la téléphone loolu mooy seen service mais ndaw la nga xam ne am na jomm dem jël gerte dem syndicat jënd kilo gerte ñëw saaf ko wër ci koñ bi di ko jaay bu jëndee woon kilo ba cinq cent gajee ci deux cent mais bu ko defee une semaine dana am lu mu ko jural ndaw la paree dem jël musuwaar jël ay petit di jaay jëli soccu di jaay su ko defee un mois dana am weccet bu mu ko jural ca lay jugee ci palaat xëy daaj taabul xëy yorub kesk ba xëy yorub boutique ba xëy yorub magasin ba xëy nekk commerçant bay dem Chine di jënd marchandise di ñëw état joxu ko liggéey mais moom moo keryal boppam emploi jom jooju léeg nag mooy des ci ndaw ñi tout le temps rek dañuy nekk ci ginnaaw état deful dara suñ milliards yi muy yàq loolu ñun ñëpp a koy wax ñu ngi ko dëkkee wax mais ndaw lu nekk moo war a jàppal boppam ne man maa war a demal sama bopp soxla na nag bu tollee fenn état pousse ko donte jarul mu koy yaakaar ndax ñu ci bëri ñu taxaw fii état jàppalewu leen mm-hmm. mais seen jomm bopp moo leen jàppale te léeg état surtout suñ jamono ji ñi mu bindoo ndaw ñu ci bëri diplôme ma leen sonal mm-hmm. te état la ko gëmloo mooy jàngal amal bac demal université amal diplôme toogal bureau nga war a liggéeyee mm-hmm. mais du bureau ñëpp fa mën a dugg mu mel nii rek dañuy gis ne am na ñoo xam ne dañuy jàng jaar étape yooyu nga wax yépp te du tax ñu am liggéey. duñ ko am. Mhm. moo tax gis nga ñu bari ñu génne université mais dañu mujj xam ne lañ leen gëm loo woon nekkul mhm. ñu bañ a tàddeel seen bopp dem jël diplôme lem ba mu jekk ñu denc denc ko tiroiru xaar yàlla mhm. dem nag Mermoz Mermoz mooy lañ leen waxoon gisuñ ko waaye nag muus nañ ba uti sàkki pexe multi service yi ci dëkk bi joma ko ubbi. mais ndaw ñi di looloo doon seen objectif ku dem ba jàng université ba yegg euh, licence xëy indi xëy ubbi multi service mais ba nga amee bac wala ba nga ko amagul mën nga gérer multi service mais jomu bañ a toog moo leen yóbbee nañu tàmbali xëy na nag diplôme ba leen ñu denc ci turwaar xaar yàlla mën na am lu mu jur pour wax rek sama mbokk mi tontu ko ndaw ñi seen première emploi mooy seen jom seen fulla seen am lu ñuy jomb waaye ndaw lu def métier yéex a tëdd naajee yeewu entraîné ñëw laaj meer bi weccet doo réaliser dara ndaw day am jomu yenn heure yi damay tëdd damay teel a yeewu dem am lu ma defi alxaraka baraka lañ wax wa tawaani halaka yëngatu barke la ba amoom liggéey nga dem marché rek dox xool say morom nangam dana am idée bu mu la jural. bu dul toog ci biir kër gi. waaye maa ngi déposé maa ngi déposé ñëw te di nelaw du sotti déposé l kayit waaye déposé wul tamit yow tamit fenn sa xel mi dana dem ba mu yàgg am lu la yàlla tàggatal ci sa génn baag dem ñëw ci yëngatu boobu ba nga am loo dugg waaye ndaw ñu bari dañuy toog naan état ñu dara mais connexion bi ngay connecté foo ko jëlee ku la ko jox. li ngay connecté un mois boo ko dajalee rek léegi tey mu mën a tàmbali benn business mais grand yónnee ma foofu benn euh, deux giga yónnee ma nangam mais grand boobu di lay yónnee loolu nga dëkkee connecté mais yaa ngi yokk chiffre d'affaires aw nit orange a ngi gagné ci yow tigo ngi gagné ci yow expresso ngi gagné ci yow mais yow looy gagné ci sa bopp ba ci ndaw li dem sax léeg ba am liggéey téléphone a yàq liggéeyam foo toll yaa ngi bëgg a connecté yaa ngi Euh, xool YouTube ba la fa ne Facebook ba la ca am na koo xam ne nii bureau stati la yor. stati la jël def ko mu nekk bureau ci ndaw ñi. statut la jël rek def ko mu nekk bureau fa lay xëy fa lay gont mais diw ni mu soxoree liir na sama statut bi te commentaire wul. chaque jour ñoo commenté wul di solo pour nit ñi di leen. waaw sañsee ko euh, photo woo publier. Mm-hmm. ku nekk naan la yaa ngi bëmaax sa monde. boobu bu ma waxee sa monde asaru ah. ba tax nag kon laajam boobu dafa am solo mais nag ñun ndaw ñi ma dugg ci biir il foog ñu jéem bañ a xaar état gis nga daara li tax daara yaru daara am solo gis nga ndong daara yi biñ génnee ci daara ji gëmuñu état pour mu defal leen dara mais dañoo gëm seen bopp ah euh, maanaam dañoo xam seen bopp. ay wax gëm sa bopp ak xam sa bopp du benn gëm sa bopp baaxul xam sa bopp baax dañoo xam seen bopp tàmbalee ci kaw yéeg jëm ci kaw ñooy ki nga xam ne nii ñooy doon marchand ambulant ba ñemee dund coono ba keroog ñuy xëy doon borom magasin ba ñooy xëy mën a dem marché jënd kafe saaf ko togg ko wër di jaay maanaam buñ génnee xaaruñ dara ci état contraire bi nag mooy que jugee ci université léeg bañ lay jàngal lañ lay gëmloo ne diplôme diplôme bii nga am salaire wu temps nga war a am nga jàpp ne lu dul boobu warula tegu ci sa loxo te yooyu yëpp léeg-léeg nax lay doon ci ndaw ñi kon ndaw ñi am na lu war état dëgg la bu fekkoon état nekk na état bu responsable li ko war mu def ko ndaw ñu lu bari dana leen ko saafaral waaye état boo xam ne nii boppam la gën a talka population ndaw lu bëgg a am jom du jël léppam wéer ko ci koo xam ne moom léppam ci boppam la ko wéer mhm. doo jël sa lépp wéer ko ci koo xam ne moom léppam ci boppam la ko wéer mhm. muy sunu état yi mhm. ku ci nekk daa falu ngir bëgg a jag moog ñi ko wër moo ki mbokkam ak am di jàmmam mais faluwul ngir yow nga jag ki falu nag ngir jag moo ki mbokkam falwul ngir yow nga jag boo dëkkee naan ko jagal ma jagal ma doo ma sa jag doo ma sa jagle kon ndaw ñi souffrance bi ñu am ñàkk liggéey geeg tout ça nañ xam ne ñoom ñoo ci mën a dimbale seen bopp. Mm-hmm. premièrement état bu ñëwee fekk leen ci ñu dem bu leen ci fekkul tamit ñu dem ku def rek gis. Mm-hmm. man amila saalihan fa li nafsi mm-hmm. fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara yàlla moom du sànk mu ko jëf aji jëf jëf jël la suñ mbokk Baay Faal di wax jëf jël ñàq jëriñu jëf jël ñàq jëriñu kon ndaw ñi il faut ñu leen jom jom ju bokkul ak yi may gis léeg-léeg bënn sa nopp dërëj sa bopp langal sa tubéy ŋàbbu cigarette waxtaan ba trois heures du matin nga dem tëddi yeewu dix heures laaj ndekki ndaw ndaw lu war a yenu yenn responsabilité yooyu daf koy jombale boppam am na koo xam ne nii dafay am vision am fu mu jëm day seet ku ku moom gis-gis mu ànd ak moom mais am na ñoo xam ne nii ku bëgg a dem da leen fii bàyyi. li ma koy wax rek mooy ne que mu waxtaan ak jeunes yi daal pour ñu defaraat seen toogaay bu baax a baax ndax jamono soppeeku na daal soppeeku na xale yi seen col yi yeeg nekkin wi yeeg loolu yëpp daal. am na cee wax daal soññ si jeunes bu baax a baax a baax. man ci xale jigéen ñi sax laay gën a adressé parce que sol gi bon gi nga xam ne moom lañ jël waaw da gis xale boo xam ne da ciy sol loo xam ne maar day taali romb la doo ci mën dara pour man nag loolu nag war nañ ci mën a wax daal yedd xale jigéen ñu baax baax ñu gën a mën a muur seeni cër waaw loolu daal moom bëgg nañ ko daal te taamu nañ ko ci ñoom tamit aussi. question bu njëkk bi mu mel ni laal nga si tuuti mooy sànq bi nga doon répondre mais deuxième bi mooy fi muy waxee si colinu xale yu jigéen yi. Mhm. waaw lu am solo la xam nga col mooy wane nit ki ki mu doon. dafa am tubaab benn baat bu ma dégg ñu ne moo ko wax te am na sax ku ne ma dañoo dagg wax ji mooy col taxul ñu xam nit. l'habit ne fait pas le am na lu ci topp nee nañ. luñ dul wax col taxul ñu xam nit waaye colay tax tamit ñu xam nit col taxul ñu xam nit ah kay su ma rombee fii sol yére yu taq ciment lu muy tegtale yére yu taq huile am na tenue yu may sol danañ ràññee police la gendarme la militaire la col taxul ñu xam nit ah, sunu borom moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajik wa banaatik wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabibihinna daalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayna yow yonent bi waxal sa soxna say doom jigéen jigéenu jullit ñi ñëpp dugg ci nañu muuru ci tënk nañu muuru mooy tax ñu ràññale leen ak ñu dul ñoom Aïcha bu rombee Hélène romb war nañoo xam ne Aïcha ak Hélène mais Aïcha dangal Hélène dangal lu leen di ràññale la suñ mbokk ma fàllu siise yàlla na ko yàlla yërëm daan wax moo daan wax ne jàngum tubaab mooy suñ nattu mooy may jigéen muy gàncatu gàncatu mooy jaay sa bopp prostitué wu faatimatu dangal watu faatimatu dangal watu am ñu naan jàpp na ko am ñu naan jàpp na ko am faatima ba noppi dangal ba noppi wat bopp ba am ñu naan moo ne de rafet na jàpp na faatima jigéenu jullit dafa war a romb ñu xam ne jigéenu jullit la ci yiw ga ci col ga li ngeen def ni baax na ba ci seen muuraay léeg ma critiqué leen ci muuraay ñett yi la war a ràmboo làmboo bu mu xat bu mu gàtt bu mu yaraax te du bopp rek lañuy muur mais loxo yee war a feeñ ak kanam léegi ibaadu seksi moo xew ibaadu seksi mooy muur bopp ba noppi dangal maanaam dégg nga muuraay bëgg nga lu baax mais xamagoo niñ koy defee jigéen dañ wax ne léppam awrala la almaratu kulluha awratun jigéen léppam awra la ba des kanamam lii ak loxoom fii ñuy takk lam wàcc niñ ko digalee mu muur bopp bi lañ ko digalee mu muur yaramam yépp ba mu des lii ndeem kooku lañ ko digal waxuma ak jigéen ji nga xam ne ma ngay sol baa mooy la ma doon wax ne ku jàng baa war a bàyyi sol baa kee ngay sol yi kële sax léeg mu ne man jimbax awut lay def ah? crop top crop top crop <laughs> top mhm. ak yeneen terme yoo xam ne ñu ngi koy faral di wax ñu ngi dégg yëpp bëgguma cee jaaraat li muy waree wane lenn la mooy màndarga jigéenu safara ñu bàyyi ci xel yeneen bi moo ne woon am na loo xam ne gisaguma ko mais sama ginnaaw dana ñëw ñaar la tudd benn bi mooy wa nisaun kaasiyaatun aariyaatun am na jigéen yu bokk sama waxeet jamono dana ñëw nu leen neex la ñuy solo dañuy solo ba noppi rafle maanaam yëre yi ñu sol la ëpp ci seen yaram day feeñ dañuy sol ba noppi rafle dañuy jeng ba noppi jengalaate seen bopp yee ñu teg ca lu mel ne jege ñu gëlëm mooy suñu yi ñu xewal léegi. cheveux naturel rek yooyu cheveux naturel yooyu. yeneen bi la lu yéeme la wax mu ne ñi mel nii duñ dugg àjjana te xetuk àjjana du leen xeeñ te xetuk àjjana boo doxee ba juróomi téeméeri at mu lay xeeñ kon am loo xam ne moddu la. dañ naan dafa xew mais warul xew ci jigéenu jullit jigéen jullit day way day dëgër li ngay sol fi ngay dem ni ngay mel qul inna solaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillaahi rabbil alamin jullit mu yóbbaale góor ak jigéen sa dund gi sunu borom moo ko war a conditionné mais warul nekk ay modd ak i modèle. oustaz ba si xale yu jigéen yi muuru léegi nga xam ne euh, bu ñuy feeñ télé wala sax ñuy génn euh, seen muuraay seen kol dañu koy andi ba fii daal di bay bay bi xeer li ci des euh, karaw ga yëpp di feeñ. waaw mooy muuraay modd yi xew rek. Mhm. naan muuraay modd muuru bàyyi jaaro ba muy feeñ. muy feeñ muuru sa loxo di feeñ ci biti. Mhm. muuru sol loo xam ne lu yaraax la. musóoru jël kol ga jaarale ko ci ginnaaw ngir bàyyi jaaro yi ci biti léeg-léeg sax nga bàyyi baat ba ngir chaîne ba nga takk mën a feeñ yooyu yëpp ñàkk xam la mm-hmm. maanaam bëgg nga lu baax mais xamoon niñ koy wutee mm-hmm. ba tax na kon maa ngi waxaat sama mbokk jigéen ñi mm-hmm. yeneen ci bi ne almaratu awratun jigéen awra la waaye léegi col gu yiiwadi gi col gu euh, ñàkk kersa gi lenn dong lay tegtale mooy kersa moo ñàkk ci jigéen ñi te loolu mandargay mujj jamono la mam Serigne Touba ci aaxiru zamaan mi ngi wax ne bokk na ci li ñuy xamee ne àdduna baa ngi bëgg a tukki mm-hmm. wa qillatil xayaai fi sibyaani wa qillatil xayaai fi niswaani mooy mu dem ba xale yi amatuñu kersa jigéen ñi amatuñu kersa mm-hmm. te yeneen tamit ne alxayaau wal imaanu qurina isa rufia ahaduhuma rufia al mm-hmm. kersa ak ngëm yàlla nii la ñu def su benn yëkkati ko rek beneen ba topp na ko te am na col yoo xam ne màndargam wow bët la màndargam ñàkk kerse la jigéene sol col gu yiwadi romb la nga ne ah ndaw col gu yiwadi mu ne la xoolal walla nga bàyyi jëndoo ko jarul sa xaalis kan mooy responsable principal bi woy jur wa ko jënd danga gis xale boo xam ne nii sept la am di sol zip fu mu jëlee njëgu zip. te sun borom nee woon na la yow waajur bi fexeel ba sa doom ji bul ko tàmmal zipp bul ko tàmmal col gu yéwadi yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp safara waaye fegal leen ci seen njaboot imam ali mel ni dañ ne ko nan lañuy fegalee suñu bopp euh, suñu njaboot safara mu ne addibuhum wa allimuhum da ngeen leen di yar ci diine jàngal leen seen diine waaye tey xale bu am 11 ans moo lay romb sol col gu gàtt gu xat gu ñàkk kers kan moo ko ko jëndal yaayam léeg-léeg bàyyi sax xaw a bañ bañlu waaye yaay ja léeg moo ko ci xëcc moom it mu nekk ku faible daal di ko nangu. Mhm. kooku bu tàmmee col gu yiwa di bàkkaar bu mu am ëllëg ci col gu di yow woy jur wa ko yar ci loolu yàlla dana la ko bindal. kon ngeen gën a waxtaan xëy na yéen a koy gën a man mhm. waxtaan ak seen mbokk jigéen xamal leen ne jigéenu jullit dafa war a yiw dafa war a muuru te muuraay dafa am ay sart du nu la neex ngay muuroo waaye dangay muuru ni ko suñ borom dig digle benn kilifa dafa wax ne jigéen ju sol col gu yiwa di sàggan ci biti ba weenam feeñ ba weñ naaw dal ca mu ne ween wa jigéen ju sàggan bàyyi weenam ci biti ba weñ naaw dal ca ween wa mu ne ween wa wëlli yu du ci nàmp wëyu nag mën na caa nàmp mais wëli yu du ci nàmp jigéen ju sàgganit bàyyi biiram ci biti ba weñ naaw dal ca mu ne ween biir ba wëli yu du ci tëdd wëyu nag mën na caa tëdd jigéen dafa cher gis nga ni ni borom jamaa bi jëlee jamaam denc ko du ko bàyyi ci mbedd mi jigéen jigéenu jullit jamaa la moo suñ borom ne ko nëbbal sa bopp ka góor ña léeg di yàpp ñu romb ca mbedd mi ñu koy piis ñaareel ku di la waaye suñ borom nee na bu ngeen yiwee falaa yuusay na kenn du leen jéem a violé wala mu leen di jéem a wax wax yu ñàkk fayda mais dañ leen di jox respect jigéen muuraay def koy valoriser waaye biñ bëggee dévaloriser jigéen ci lañ ne ko murikul jigéen la ñuy jël léegi di ko jaayee lépp danga gis oto bu ñuy jaay ñu jël jigéen ji sol zip ñu foto koog oto bi ne oto bi 9 millions lay jar fekk na li li ñi ngi jaayaale borom zipp bi mooy jaay oto bi te yëgu ko jigéen bi mu xamul valeur am ci la yegg foofu noonu li kon soxna si li mu wax defe naa keneen ku góor kii tamit wax na ko ci élément bi fàttali boobu rek lañ ciy def ñoo xam ne farata la ci jigéen mu muuru du aaday naar du yëfu mag mais ku xasa a asma la ko yéneen waxoon bintu Aboubakirin ne ko jigéen bu demee ba tàmbalee gis mbaax waratuñoo gis ci yaramam lu dul kanamam ak loxoom fa muy takk lam wàcc ci suuf mm-hmm. lu dul loolu bu feeñee rek bàkkaar la. soxna Aminata mu mel ni rek uh, li ñu fi jot a tënk oustaz uh, yaatu na lool uh, jàngale bi neex na trop mais nga dugalaat beneen question rek ñu mën a jàll ci actualité a ñu koy ñu koy yeewi. Mm-hmm. ko poser benn question. parce que dafa Euh, te yaa ngi wax ni muuraay nekkut loo xamante ne aada la nekkul loo xam ne aada la wala yëfu naar la euh, te yaa ngi wax ni tamit muuraay bi dafa am charte yoo ko war a muuro est-ce que mën nañ xam yan charte la parce que nit ñi am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek jël seen kol teg am na ñoo xam ne dañuy juddu si famille boo xamante ne ñoom ñëpp dañuy muuru ñu juddu di muuru te duñu sax jot a jàng wala pour xam lan mooy tax ñu war a muuru mm-hmm. waaw li nga war a njëkk a xam mooy xam ne muuraay jaamu yàlla la ci jigéen loolu koy muuru ku nekk war na ko xam waaye tamit farata la rawatina booy génn rawatina bu fekkee ne kër ga nga nekk nekkoo fa yow keseeg say say fereer sa papa am na benn étranger bu nekk ci kër gi amoo droit def bopp neen ci biir kër gi wala di musóoru ci biir kër gi muuru soo demee bay génn kër gi nag moom rawatina mayuñ la nga teg sa tànk ci buntu kër gi yow jigéenu jullit rawatina bi nga majeure lu dul ne sa kanam rek ay feeñ ak sa lox sart yi ñett yi la mooy ponk muuraay bu doon farata la dañ naan ñett farata yi la am mooy bu mu gàtt bu ñam muuraay du kol foofu yére yëpp la il foog ñu xam baatu muuraay ci lislaam du kol mais sa yaram lañ la wax nga muur ko mais pas sa bopp ñu bari buñ déggee muuraay pour ñoom bopp la ci nga gis ku muur ba noppi sol body gis ku muur ba noppi sol zipp gis naa ko ndax moom mu ngi déggee muuraay bopp te kol gu macha allah la muuroo mais xamul ne muuraay yaram la yaram bi lañ la wax muur ko kon col gi wala muuraay gi du gàtt du xat maam jigéen julli li muy muuroo warul la wane yaramam ni mu mel warul seere ci yaramam waaye tamit du yaraax laa yasifu wala yashifu waru la wane sa forme ni mu mel ñu xam ne sa bindu yaram nii la mel waaye tamit warul waree sa teint maanaam sa yaram ñu xam ne ñuul na wala xees na ngir yaraaxuk la nga sol kon du gàtt du xat yaraax lii mooy farata yi du aaday naar mais diine la léeg-léeg nga dégg ñu ne ñun xamuñ muraay ma ne ko yéen ñan yéen ñan a xamul muraay Serigne Touba ci wasiyatu Penda Diop bokk na ci lam ko ci digal muuru Seexul Xaaj Abdul Aziz na téere bu mu tuddee inqaazul ixwaan min nazaxaati cheytaan na cheytaan naka la ñuy sauver sunuy mbokk ci cheytaane ay chapitre la am na ci benn chapitre boo xam ne uniquement maam Seexul Xaaj Abdul Aziz muuraay rek la ko jagleel bone jigéen a julli ni mu war a muuroo ak cosaanu muuraay ak boroom xam-xam yi liñ ci wax kon ki ne murit la wala tiijaan laa wala xaadir laa wala yaa xam noo de sa bopp ne du ñu muuru ñun xamuñ ko yow yaa ko xamul yow waaye amul benn tariixa bu xamul muuraay ndax tariixa bu fekkee xamul muuraay rek bokkul ci diine ndax diine moo digle muuraay alxuraan la yaxi la yu ne fàng xadis yeneen bi la kon kenn mënu koo daw en tant que jigéenu jullit kon euh, nekkul luñ naan aaday naar la wala ñun xamuñ ko déedéet mais aaday diine la moom muuraay mm-hmm. soxna Aminata euh, comme ni ma la ko waxee léegi rek euh, temps bi daf ñu daal di xoj mm-hmm. euh, li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li te xëy na oustaz itam am na yeneen yitte yu mu war a doxi Euh, dina fi ñëwaat ñu gën a yaatal waaye nag euh, mënu fee ñëw te waxtaanuñu ci li nga xamante ne moo di actualité bu ko defee soxna Aminata dañ lay jaajëfal rek bu beneen yoon incha allah di nga amaat possibilité daal di waat ak oustaz ñu daal jàll rek ci question actualité euh, mënuñoo ñëw ak yow waxtaan ak yow ba tënk te duñ ci àddu muy mbirum kast bi nga xam ne daal nañ koy nemmeeku ca diwaanu Thiès gën kaa jege rek ca Pout Dagné Euh, coow li nga xamante ne nii euh, euh, géer yeeg géwél yi daal dinañu koy fay am lan moo ko waral géer yi dañu bëggoon rek suul seen géwél yi du moins dañu bëggoon suul seen néew foofu géer yi ni leen duñu ci dal ndax kat ñoom ay yàlla yàlla lañu ndax oustaz yi fi nekk bu weesoo oustaz Makhtar Sarr ñu ngi waxtaanee loolu di ci tàggat ndaw ñi ak it yan daan lañu ci war a jël. waaw man ne ma ko gisee dama ci am kersa lool. Mm-hmm. ndax foogu moon ne ak réer ci des na fi ci anam gu mel noonu ndax nag yooyu yëfu ceddo yi la yu fi ceddo yi bàyyi woon la defe naa nag fi jamono ji toll ba nga xam ne tey rajo yi ñu ngi waaraate tele yi ngi waaraate daara yaa ngi partout e, jàkka yi ñu ngi koy tabax partout nit ñi war nañoo weesu nit ku faatu ñu naan géer la géwél la fii lañ koy suul ak fële mm-hmm. yàlla li ko ñor du géer ak géwél jullit ko yor wala tamutunna illa wa antum muslimun suñ borom nee na fexe leen ba ba ngeen di faatu dooni jullit waaye waxe waxul ne dooni géer ak géwél de fexe leen ba ba ngeen di faatu ngeen dooni jullit géer bi jullit la armée lu jullit lañ koy suul dañ koy jullee sang ko sang ko suul ko ci armeelu lu jullit ñi budul jullit nag duñ ko suul ci armeelu jullit ñi loolu ñu bàyyi ci xel mais yow géer nga wala géwél nga ba tax la duñ la suul ci armeel yi loolu moom du diine diine xamoo ah loolu nag wax dëgg dégguma ko woon man ci élément bi xëy na foruma lépp xaw ma yàlla yàlla li ma ci jotoon for daal defe naa euh, duñ ko suul fii ndax bu njëkk ku faatuwaan ci guy lañ lay yóbbu xaw ma denc la fa mm-hmm. léegi bu demee ba euh, suulatuñ ci guy ya kon kuy géwél boo faatoo dañ lay yóbbu ca àll ba ñu suul la fa loolu laa déggoon mm-hmm. yàlla yàlla nag ñeneen la ñoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi dégguma koon ci élément bi moo tax mënuma mm-hmm. ci àddu waaye daal li ma xam te mën ko wax fàttali ko samay mbokki jullit mooy yooyu nañ ko éviter mm-hmm. rawatina ko faatu yeneen bi dana lii lor kii dund mooy lor ki faatu maanaam lii déranger nit ki bi muy dund biñ ko ko defee bu faatoo biñ ko ko defee moo koy déranger mu ne dammu yaxu dundu dund moog dammu yaxu ki faato ñoo yem maanaam kooku ñu bañ a suul loolu ñu ko def naqari na ko lool comme ni nga xamee ne bi muy dund buñ nekkoon dëkk bi doo fi dëkk ndax géwél nga noonu la koy naqari sunu borom dane inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla mu ne man la saw ma def leen ngeen ay géer ak i géwél waaso ay xeet population yu wuute pour ngeen xamante waaye ki gën a tedd ci yéen du waaso bii ak waaso bee man la soob rek ma def leen ay waaso waaye ki gën a tedd mooy ki gën a ragal yàlla te ñun ñëpp nag aadamaay suñ maam géer ak géwél imam aliyun wax na ko ci benn benn wéyam annaasu min jihati tamthili akfaau abuhumu aadamu wal ummu hawaau mu ne nit ñi bu ñuy joxe exemple niñ bokkee mu ne waaw ñun ñëpp sax ay nawle la ñu nag ñun ñëpp ay nawle la ñu ne ko amee ah, léeg-léeg ñu ne kii du nawle kii kële du nawle mu ne waaw loolu dañ koy wax ni mu jege mais nañ arrière mbir yi ca ginnaaw ndax ñun ñëpp aadamaay sunu baay xawaay sunu yaay in yakun lahumu min aslihim nasabun yufaaxiruuna bihi fa tiinu wal maaw mu ne bu fekkee am na kuy tiitaru ci kaw moromam naan ko may diw mu ne arriéral diwee sa maam demal continuel del lim mu ne balaa ngaa dëpp yegg ci maam moo xam ne ndox ak ban la ñun ñëpp maam ndox ban mooy sunu maam muy aadama di woy sama maam di woy sama maam mu ne demal bul taxaw de da nga dem ba kosta ci maam ndox ak ban mu ne kon daal li mat a puukare mooy jàng ba am xam-xam ragal yàlla di ko jaamu kii daal moo war a fëgg dënnam waaye maa bokk ci yax bu rëy jarul la puukare mm-hmm. kon yooyu noonu wax dëgg fa yàlla dégg naa coow li ba ñuy wax ne gouvernement bi jot na ci dañuy xaar ba élection yi passé xaw ma ñu regle ko luñ ci xaar pour élection yi passé kii nga xam ne faatu nañu war ko denc te yooyu yëpp nag ñàkk diine ki rek moom moo ko indi waaye diine defe naa bu duggoon ca dëkk ba raxas bopp ya danañ génnee seen bopp ka buñ suulee diw fii dañuy umu dëkk bi duñ ama ci dara ana yàlla nit kuñ suul ci dëkk mooy ume ngir ne dafa bokk ci xeet sàngam waaw bu fekkee buñ ko suulee foofu mooy ume xanaa bi muy dund nekk ci dëkk bi dafay ume mhm. yàlla mooy wërsëgal ku ko soob inna allaha huwa razaqu dul quwati almatin yàlla mooy borom kàttan mooy joxe wërsëg kenn munu koo xañe ku ko yàlla nam jox kenn munu koo jox ku ko yàlla nam ma xañ ñu bàyyi ko xel bari pexe mayewu ko néewi pexe xañewu ko moom wërsëg mais yàlla moo koy joxe ba tax na kon loolu xew ca dëkk boobu noonu la yàlla jeex ci réew mi li ñu war a bañ kay mooy li may dégg naan ñu ne armel mixte armel mixte loolu la war a xeex mu ne mu jug Sénégal armeel yoon dañ naan jullit ñi lañ jooy suula catholique yi. Mm-hmm. loolu la ñu war a xeex mu jug Sénégal. waxuma ko nag ngir eh, ñàkk am tolérance. Mm-hmm. ci suñ mbokk catholique yi mais sàmm suñu pas-pas tax ma wax ko. Mm-hmm. xam naa ci wàllu armel boo xam ne nii jullit. jullit yee ko moom waruñ fa suul ku dul jullit. armel yu catholique yi moom waruñ fa suul ku dul catholique. waaye jaloog la pour wane ne jàmm dañuy suul fii jullit ñi tey ëllëg ñu suul fee catholique yi armel yu ay jullit moom waruñ fa suul catholique mm-hmm. armeel yu ay catholique moom waruñ fa suul jullit lii mooy pas-pas bi lislaam jàngale ci wàllu woowu soxna Aminata yaakaar naa am na ca question ci feet yi nga xam ne moo fi am d'accord kon euh, bu dee question na la également man dema naan balaa ñuy jàll foofu rek bi ko ci actualité la ñu nekk dañuy delluwaat tuuti rek ci mbirum criminalisation de l'homosexualité ñu gis ay fan yu ci ginnaaw euh, normalement dañu waroon a voter pour durcir peine yi nga xamante ne war nañ ko teg euh, gars yi. Mm-hmm. mais ñu gis rek majorité ci assemblée nationale dañ ko daal di rejeter ma lay laaj rek naka nga gisee euh, taxawaay ki nga xamante ne mooy président de l'assemblée di Moustapha Niass. Moustapha Niass. mo Moustapha Niass moom <laughs> presse bi ñoom ñooy def amalgame rek sa Niasse dèjà moom nekkul Sénégal sax instant yi nii. Hmm. bay wax ci loi bi. ma nga assemblée ba léegi mi ngi en cours. Aymérou Gningue mu Aymérou Gningue moo génn def communiqué wax te moom la engagé mais engagé wul waa Bennoo Bokk Yaakaar. Hmm. dèjà Bennoo Bokk Yaakaar am na ñu ci nekk ñoo xam ne yëkkat nañ seen loxo ne loi bu ñëwee dañ koy voté mën nañ jëtt tudd ko mel ni Abdoulaye Wilane ak yeneen i député. Hmm. kon du waa benn Bokk Yaakaar gépp wax ne bu loi bi ñëwee duñ ko voté mais Aymérou Gningue moo def communiqué en tant que ku jiite groupe parlementaire ba wax li mu wax dañuy jàpp ne ba tey rek moom Aymérou la engagé ak ñu mel ne moom ku mel ne Djibril War nga xam ne wax nañu dégg ko ñooñu la engagé gum ñaar ñooñu mais ñeneen ñi nga xam ne ñoo noppi ñu luy seen kàddu ñi wax moom bokk ca mouvement présidentiel ba leer na joxe nañ seen kàddu ñenn ñi ñu xam leen ñu joxe seen ne bu loi bi ñëwee dañ koy xamaataguñ ñeneen ci groupe parlementaire bu ñu wax ni bu loi bi ñëwee dañ ko voté nañ xam ne loi bi en cours la nekk étudier guñu ko ba mu war a yegg fa nga xam ne mooy commission bi saytu wàllu loi yi ba keroog ñu yegg ca bis ba nga xam ne nii ci lañ koy vote yegg guñu foofu. waaw ba ñuy wax ni député lànk nañoo bañ na dafa yoo xam ne ay manipulation la rek ñi xamul nag xamuñ ñu bari sax teg nañ ne la 22 bi ñu dugalee loi bi ci lañ ko waroon a voté. ñu bari ñu ngi ma doon laaj naan ma waa gars yi ndax voté nañ ko voté wuñ ko ma ne leen teel na xëy na ñu bari nag euh, te yooyu yëpp yu ñu war a joyantiwaat ci réew mi la. ma yow en tant que sénégalais bi lay xew assemblée xamoo ca dara na muy tëddee ku mel ne man informé wuñ la ci dara nañuy voté loi ya xamoo euh, commission bay saytu wàllu luwaa xamoo nan lay tëddee loi xamoo buñ ko. buñ koy dugal kan moo ko war a dugal xamoo lan mooy proposition de loi xamoo lan mooy projet de loi kan mooy def proposition de loi député la projet de loi ku koy def président loolu yëpp yow en tant que citoyen bi xamoo ko loolu nag mooy indi léeg bu yu mel noonu amee yenn presse yi bind ku nekk di laajte waaye daal la ànd sàmm jikko yi dugal assemblée nationale ba fii mu toll nii ma nga ca taabalu assemblée nationale président assemblée nationale àddoogu ca waxagu ca ndax mi ngi ci tukki jotaguñu dara loo xam ne lu officiel la ba ci communiqué bi communiqué bi dafa am lu garab lu ngeen ci bàyyiwul yéen ñi ko jàllale xel mooy amul kase amul signature ku bind communiqué bi bu fekkee ñoom ñoo ko bind jëluñu seen responsabilité ndax am na lu ñuy daw kon ci communiqué bi biñ ko bindee mais lu yooyu tamit lu bari dañ koy gis parfois dañuy publier ba pare nit yi bàyyi ci xel ñoom ñu doog a retourné waat génnewaat beneen communiqué. lu mel ni rek faa yooyu moo tax ñu ngi ñu ngi jàppandi rek ne xëy na. ñoom ñoo ko bind waaye communiqué nag boo xam ne dafa bàyyeekoo ci euh, ay responsable war na am am signature war na am tamit cachet. léegi nag bu fekkee ñoom ñoo ko bind te defuñ ko ci ñun am nañ ci beneen lecture boo xam ne après danañ ko wax sénégalais yi su boobaa. waaye daal nañu xam ne ba fii mu toll nii ànd sàmm jikko yi la mu bëgg mi ngi tegu ci table assemblée ñun liggéey ba ñu waroon def yépp def nañ ko. bal bi centré nañ ko biir assemblée dëgg nañ bal bi ñu ngi toog di leen seetaan fan lañ ko jëmee wii rek wii rek lañ bëgg a dégg <laughs> ñu amee ca ndam. président lam doon wax ñu xam ne kat dëgg la ci moom mooy du fi mos a dagane kon léegi araamal na ko jeex na lu mel noon nag bu amul la ci kanam rawul yu bët rawali bët. d'accord espérons que dinañ yegg ci seen euh, bëgg-bëgg yooyu noonu comme sànq ni ko soxna Khady waxee rek tey jii ñoo ngi dem ci fête la ñu nekk ñoo ngi dem euh, ci 31 décembre ñu gis ne rek euh, jullit ñu ci bëri dañ koy jël moomale ko seen bopp di ci bëgg a rey seen bopp loolu lan ci ab jullit warul feetu 24 warul feetu 31 man loolu laa yàgg wax ndax du seen yëf nañ ko bàyyeek ña moom ñu feet ko li ko waral nag lenn dong la mooy ñàkk bokk ngëm-ngëm dafa war a am yu mu jur ba tax ñu maandu ci yenn ngëm-ngëmu ñenn ñi bàyyi leen ñu doxal ko donte bëri na histoire yuñ ci wax ne du vingt 24 la yonent yàlla Isa gane àdduna 31 ngénte li mais ñi koy màggal ñu bari loolu lañu fas loolu lañu gëm mooy 24 la gane àdduna 31 mooy ngénte li ñi koy màggal lan lañ fas ci yonent yàlla Isa mooy doomu yàlla la ndax jullit bi loolu la war a gëm mhm. ñenn ñi ne yàlla la ndax jullit bi loolu la war a gëm qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ahad yow loolu nga gëm waa kii gëm leneen lu bokkul ak li nga gëm yow nga ñëw muy màggal moom la mu gëm nga ne ko kaay ma màggale la ko bu tabaski jotee ka ngay màggal le 24 maandu na ba du dem jëndi xar ñëw ne mi ngi koy màggal waaye tey ñun daanaka ñoo ko nangoo sax ci ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko moom di ko màgg dëgg la dañuy wax 31 décembre fin d'année la rek moo tax ñëpp ko war a fin d'année ñan ah. ñun suñu fin d'année wees na di. wees na. weeru tam xarit ñu première muharram première jour tam xarit mooy suñu premier mooy suñu première janvier mm-hmm. boobu la ñu war a feetu dafa loo xam ne nii dafa dema dema dem ba da lay fàtteloo yu bari maanaam fin d'année bi ñu la wax lan moo ci xew mooy ngénte kan yenent bu tedd yenent yàlla Iisaa mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ko topp am na pas-pas bu ñu gëm ci moom boo xam ne ñun pas-pas boobu alxuraan dañu ko weddiloo sunu borom bu fekkoon ne am na lu ko naqari ci alxuraan mooy kàddu gi ña Iisaa doomu yàlla la moo ko naqari ndax répété na ko lu bare bare ci alxuraan di ko méttitlu mm-hmm. dem na ba yowmal qiyaam di dikk yàlla dana taxawal yonent yàlla Insa ne ko ndax yow yaa waxoon sa njaboot ne leen man yàlla laa mën a Insa ak sama yaay Mariam ba yonent yàlla Insa alxuraan lañu koy jàngal naan yàlla in kuntu qultuhu faqad alimtahu ndax taalamu maa fi nafsi wala alamu maa fi nafsik innaka anta allaamul xuyub dafa mel ne buñ la mënoon a wan image bi yàlla di wax ak Insa dafa mel def ko gëdd ne ko ndax yow yaa wax sa njaboot ne leen man yàlla laa maak sama yaay Mariam Insa ne ko ah yàlla su fekkee wax naa ko xam nga su dee waxuma ko xam nga ndax yow xam nga li ci man man xaw ma li ci yow lépp nga xam ne nii yàlla métti lu na ko ba yowmal xiyaam mu continuer di confirmer lu ndax Insa lii ànd na ci am mu ne ko kaccat ma ca surtout Mariam sunu borom nettali nañu yonente Yàlla Insa ni mu gane àdduna ci miracle am am am am am am yaay te amul baay ba mbokk yi nar koo sonal sun borom ne ko bul tontu ne leen inni nazartu li rahmaani sawma falan ukallima al yawma insiya ne leen rek man dama woor du ma wax ak kenn bi ko mbokk yi waxee ne ko waaw yow noo mën a amee doom te amoo jëkkër mun leen duma wax ak kenn joxañ leen Isaa ne wax leen ak moom dana leen tontu ñu ne ko dag ñuy fonto wala kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya xale bu tudd tëdd ci berzoom naka lay waxee bi seen kàddu di daanu rek la yeneen yàlla saa yëkkati baatam ne leen inni abdullahi man jaamu yàlla la yàlla moo mën a ma jox téere na ma jox def ma nekk yeneen na na ma maa def ma nekk ku nu barkeel li ma dénk wa awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu xayya wa baran bi walidati walam yajalni jabbaran saqiya julli la ma denk ak joxe asaka fonk samay waajur boobu liir la moom yeneen te àlla saa tudd ci tëdd ci berzoom di wax ci même laaye ji la suñ borom wax ne keroog bi kàddu jibee ñu ne Aïssa doomu yàlla la mu ne tuutee te asamaan si fàq tremblement de terre am an daaw li rahmaani walada te wa maa yambagi li rahmaani an yataxida walada bi ñu ne yàlla am na doom asamaan dafa tiit bay bëgga daanu suuf si tremblement de terre di am bëgg am sunu borom mu ne dañ ne am na doom tam jaaduwul may am doom loolu jullit bu xam lu mel noonu da ngay maandu ca ka gëm lu mel noonu respectel ko ko en tant que ñu dëkk réew mi ku nekk respecteel moromam la mu gëm waaye nag waroo caa bokk. ne maa ngi participer ci bisu juddu kuñ ne doomu yàlla la di ko ca reyal ginaar. ba ci rek euh, ñaan yi nga xamante ne ñu ngi leen koy ñaanal ay mes meilleurs vœux euh, di leen ñaanal yàlla na leen euh, ma ma mantoowu Mariama sàng ak affaire yooyu noonu lan la ci charia wax. ñoom ñi nga xam ne ñoo koy màggal nañ ko ñaanalante ci seen biir. am nga droit nag ñaanal ko bokkalul diine katolik ba juif ba. jàmm wér sutura mucc xéewal lislaam daganal na ko. mais ñaanal ku faatu ca ñoom nag la lislaam daganalul te yooyu yëpp léegi daw yu baree tax leeralatuñ ko jullit ñi tey lu mel ne li ma wax ne armée lu mix jaaduwul ñu bari léegi boo ko waxee dañuy jàpp ne non dafa bëgg a tàqale te ñun ñëpp benn lañ déedéet tey dem na ba ay catholique ñi ngi sëyee ki léegi jullit te tuubunu ñu teg ko rek ci kaw jàmm loolu tappale la caaxaan la dañ ko war a leeral jigéenu jullit mënul sëyeeg ab juif wala mu sëyeeg chrétien te tuubul loolu duggul ci ay jàmmoog déedéet mbirum pas-pas la koo bokk lu diine bu faatoo sañoo ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm daganul islaam daf ko tere muy chrétien ba muy juif ba mën nga ko ñaanal bu muy dund wér jàmm sutura xéewal luy teraangay àdduna man nga ko ñaanal lislaam ubbi na bunt bi waaye bu faatoo sañoo ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te loolu julli ñu bari xamuñu ko. xamuñu ko ñu bari kuñ bokkalu diine bu faatoo da ngay dégg yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ku ko def def nga bàkkaar sunu borom nee na kenn waru ko def te loolu dañ ko war a wax ñu xam ko kon yàlla terewuñu ñu dundandoog ñu nu bokkanul diine comme niñ koy defee ci senegal ku nekk ngi dëkk ak sa mbokkum chrétien léeg-léeg sax ngeen bokk genn kër ngeen seq jàmm yàlla terewu la ko waaye nag dafa am ay limite nag am fu muy yem am na loo xam ne gëm na ko ma ngi koy feetu di ko màggal danga ko koy respectel bàyyi ko mu feetu ko waaye amoo droit ñëw bokk ak moom feet googu noonu de ndax la mu gëm ba tax mu koy feetu yow gëmoo ko yow li nga gëm ba tax ngay feetu yow li ngay feetu moom gëmu ko waaw naka la mën a amee moom fayda jutal ne weeru koor bu jotee du la wooral du la woorle tam xarit tabaski bu jotee du la du jëndum xar rey ko yow nga ne yaa baaxeey yaa bëgg jàmmeey ne léegi bu vingt jotee ak 31 du ma ko bokk ak yow. soo waxee ñu ne suñu fin d' année 31 du fin d' année kese waaye dafa am leneen lu ci lëmasu loo xam ne ni war na tax ñun jullit ñi ñu dawandiku ko. Mm-hmm. mu ngoog mbokk yi ni ñu leen ko liggéey woon rek seen spécial fin d'année euh, ñu àndaloon si rek ak oustaz Makhtar Sarr waxtaan wi yaatu lool ku ne daal di ci jàng ba ci cadre yi nga xam ne ni rek ñoo nekk ci ginnaaw doy wax lool dama koy bàyyi rek mu daal di ñëw ci tënk euh, li nga xamante ne nii moom la bëgg a tënkee ak internet yi ñu bëgg a seetaan laata muy tàggatoo ak yéen oustaz. waaw di leen sant bu baax di leen euh, gërëm di jéggalu mbooleem kàddu goo xam ne nii rot na fi te dëppoowul ak euh, li fi war a rot ñu ngi ciy jéggalu ñi seetaan waaye tamit ñi nga xam ne ñoo nu ëpp xam-xam te doon seetaan émission bi lu ñu fi jàngalee te dëppoowul ak xam-xam ñu dimbale ma dimbale ñi seetaan jubbanti ko ba mu dëppoo ak xam-xam li ci dëppoo ak xam-xam nag ñu ñaan yàlla mu nangul nu ko tasaare ko ci réew mi di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal mbooleem euh, kuy dukkat ci kaw suuf yàlla yàlla defal la jàmmu di sant di gërëm ci dalal bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ni tam ñu lay jaajëfal oustaz di la gërëm it si disponibilité bi yombul loon waaye nag bàyyi nga sa yitte yëpp daal di ñëw lépp rek ngir bégal waa Dakar Buzz waaye itam ngir bégal askanu Sénégal ba ci rek ñu nekk biti réew donc dama fay jaaree rek daal di tàggatoo ak sama naataango yi soxna Aminata. d'accord Khady plateau bi bu baax a baax. aywa ñu tàggatoo ak euh, soxna Dieynaba laata ñuy dellusiwaat rek ci soxna Aminata. d'accord jërëjëf soxna Khady euh, merci beaucoup ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon seetaan di remercier tamit oustaz bu baax a baax ci disponibilité am vraiment kontaan nañ te yaakaar naa aussi internet yëpp dineen njëriñu lépp li nga xamante ne daal dineen ko waxtaanee fii. mu ngoog uh, mbokk yi nii rek lañ koy fas yéene di def ak yéen oustaz nag uh, dina fi ñëw dina fi ñëwaat te dina fi ñëwaat incha allah uh, parce que bëri na ay ponk yu ñu fas yéene waxtaanee ci biir ay waxtaanam daal dina leen di tudd sax waaye mënuñ koo yaatal ndax njaaloo bi ñu doon waxtaanee donc yaakaar nañu ni lépp lu fi génnee ci ay kàddu dina leen jaxiñ nim ñu jaxiñee nim ñu fas yéene jaxiñee laay wax ñun ñi nga xamante ne nii fii la ñu toogoon ak oustaz di jaajafal équipe technique Dakar Buzz yëpp di jaajëfal sunu cadreur yi Amadou Malika ñi nga xamante ne ne ni rek ñoo nekk ci ginnaaw ak euh, ñoom Mohamed di leen jaajëfal yéen internetu Dakar Buzz yi safoo di ñu teewlu fii di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal it at mu bees ngeen dugg seek jàmm incha allah jaa jëf